fin de cette émission dans quelques instants retrouver ma femme loolu day neex de. <laughs> nga jógee tuuti naa ay mots kay. man di ngeen ànd ak sama série. merci mon cœur. waaw quand même. enchaîné donc dem journal bi. <laughs> ñëpp ay seetaan pour transition. Eh, eh, eh, oui ma xool seen yëfu nu nit di yabaatee ak nu ñu yabaatee. arrêtez avec vos histoires là bu naan contre contraire. loolu dafay neex téléspectateur yi. day déontologie noonu. bàyyi ñu ah faut que tu sors de de notre corps. <laughs> donc ils vont te rejoindre bu ca kanamee ils sont nos invités. waaw donc ils vont nous rejoindre tout à l'heure mais tey ci lundi bi Pape Cheikh dama am leneen lu ma. Euh, lu ma bëggoon indi. lan la parce que souvent euh, dama gis sur euh, sur YouTube. que sénégalais yi euh, clip rétro yi. daa ngi bëgg a wax léegi bàyyi. <laughs> yow Pogba aywa carrément. jël nga péage bi de. bu baax comme nañ ko toppatoo bi la. waaw moom mooy yow. ah loolu mais c'est les mêmes habits que tu avais. Mhm. les mêmes. ok les mêmes. moom moo changé. elle est trop belle. elle est trop belle ta chemise. merci beaucoup. super. donc euh, Pape Cheikh tey dañuy indil gars yi les clips rétro on a vu que sur YouTube en général quand tu y vas euh, clip yi ne ça fait plus maintenant vingt ans gars yi dañ koy gis lu bëri bëri et puis dañuy surtout avec les, commentaires koo ci gis dafay nostalgique de, de de cette très belle musique là alors je me suis dit nañu ci week-end bi nañu concocter une petite compilation ak Ngalich ñu xool ko ñëwaat après waaw mhm. kon ñu xool li nga ak Ngalich <laughs> c'est parti vrai que y a d'autres ah ci ay vidéo yoo xamante ni yàgg la grâce ak YouTube. mën nañ ko seetaanaat et ça nous rappelle beaucoup de souvenirs bu baax. voilà ça nous rappelle beaucoup de souvenirs li ma ci gën a affaire euh, marqué mooy boo demee sur YouTube les commentaires c'est des commentaires récents et c'est des gens qui te disent en général non nam nañu musique sénégalaise période bii. c'est en général par exemple alal Fallou Dieng mi ngi ko génne woon ak Lemzo Diamono. ci album euh, xarnu bi. Mhm. tu vois nii la aussi c'était avec Omar euh, Omar Pène ak euh, Super Jamono boobu ba woon. Mhm. pas New Look mais Super Jamono. bu yàgg bi bu yàgg bi. Mhm. on a vu le clip nii la ak ni doon solo Dakar tamit. vue aérienne bi ci gars yi euh, amoon mais surtout contenu contenu musical bi. nga clip yi Pape Jean réaliser vidéo yi nga xam ne. y avait pas moyen yi nga am léegi. y avait pas ces moyens là y avait pas ces moyens moo tax. ñoom ñoom ñoom Adama Ndiaye. bien sûr ñoom euh, Bélis yi ñu koy waxtaanee léegi nii waaw ñu koy waxtaanee léegi nii Habib Ba Habib Ba ñoom ñëpp donc euh, voilà c'est c'est lii laa bëggoon indiwaat et puis surtout dire aux jeunes chanteurs que nii lii ëpp na ñu ci bëri def na vingt ans et plus et que il faut prendre le temps de bien travailler nga xam ne même dans vingt ans après bu ñu tegaatee sa sa sa sa clip vidéo ñu koy ñu koy seetaan les gens vont se dire tiens ah li fi sa waay woyoon de mi ngi neex ba léegi parce que li ñu fi gis ba léegi nii yëpp ba léegi nit ñi nit yaa koy seetaan ñu def ay recherche parce que ñu koy commenté yu bëri dañu naan lii bi may nekk par exemple euh, gis naa clip ba mbéri par exemple. wala ah, ma xam ne Thiès la dëkkoon waaw parce que da ngay nostalgique. da ngay nostalgique tu euh, daawuñu xool ndax neex na wala neexul wala ki koy woy mën na ou lu génnaan dafay. dafay nekk carton quoi. dañ parce que Barchana aussi c'était bien travaillé. Mm, waaw aussi duñu doon yàkkamti. y avait pas xam ne bi woy bi génn peut-être six ans la amoon sept ans la wala huit ans même dix ans la amoon mm. day jékki-jékki di ci amoon da ciy fàttali tuuti. et puis bu bu bu boo amee chance nga gisoon woykat yi. waaw gis star extraordinaire mais léegi rek le star di doon peut être euh, les gens sont pas mal. mais à mm. la preuve yi boo souvent gars yi dañ en direct et y' a tellement d' appels les les en en redemandent te ñi peut être fekkewuñ ko. Ah, ah. dañu fekk par exemple da ngay gis ki naan la ah, sama sama yaay la may fàttali. voilà da ngay màggaale défi pour nos jeunes chanteurs mooy. lépp looy def na gaay na gaay màggaale am na yeneen yoo xam ne mi ngi en boîte peut-être euh, on aura l'occasion de revenir et puis surtout peut-être revenir temps yi ci les groupes de quartier ay fallu par exemple misaal bu bu Padois xam ne boo euh, par exemple Thiado aussi des HLM waagu ñaayan ut amoon na période yoo xam ne à Dakar les groupes de quartier dañu amoon doole mm-hmm. même dans les régions mais on a vu que maintenant nag on a ça tendance à disparaître lan moo tax groupe yooyu disparaître on quartiers yoo xamante ni dafa dafa soxla ak ak ak population bi ah. voilà donc euh, mais bon ça ça c'est ça mais on voulait peut-être euh, ñu ko illustrer ñu xoolaale xa xoolaale ñoom Fallou léegi léegi léegi xam naa moom bu gisee léegi na ree ba dee. Euh. y a d'autres vidéos yoo xamante ni ay souvenirs la de. kii kan la ci. Yu Diagne ndeysaan. Yu Diagne yu gaañu na. yu ndeysaan oh Yu Diagne. yu ak Ela. yu ak Ela ndeysaan. oh ak nga Seck Dallas mi nekkoon ci. Euh, Seck Dallas ba. xamoon nga Seck Dallas wala jotoo ko ay jaloorem la. la dégg donc euh, oh. parce que dañ ciy profité souvent di waxtaan ak ñu mel ni ñoom Fallou. ñu lay wax yan condition la ñu réaliser euh, vidéo yi sànq li nga wax sànq rek moyens yi demeewul woon noonu mais dañu doon jël seen temps liggéey ak les des professionnels mel ñoom Adama Ndiaye dem si yàlla xam na ay bien d'autres euh, ci liggéey bi euh, donc voilà moo moo moo tey li li gars yi yëpp et puis Khalil Gueye aussi gis ngeen on s'en souvient ci réalisation clip bi Khalil Gueye waaw donc oui Fallou Gueye a on a d'autres <laughs> vidéos yoo ne <laughs> même waa également ci crew bu Omar Bem nii la ñoom ñu ngi une émission xam ne af suite finalement yaa donc on a voulu, voulu quand même marquer, marquer le coup uh-huh. ko téléspectateurs pour fàttaliku quoi fàttaliku merci euh, DJ Bouba Fall li plan bi plan boobu ma neex plan bi xale bi ñorale noonu ñu jël caméra bi dugal ko ci diggante tànk yi ça c'est ce qu'on la valorisation je te ah bu Pape Naar bu Pape Naar sax leer laa lay expliquer nii barke borom Touba indil ma plan bi wala waa kay xoola boobu plan ça c'est ce qu'on appelle la réalisation bu jógee xale yi ñoom ñoom duñu rey lii la ak laale la lii mooy plan. plan <laughs> plan nga rale kon xanaa yaay taxawee ne le. <laughs> xoolal bii xeetu plan. ak ñoom mënoon a filmer mën a réaliser ah. ndeysaan huit plan bi dafa daf ko panoon dafa panoté nag. <laughs> Mm-hmm. ngi def caméraman dafa panoté. ku def fiso. wàññi jaf bi tuuti. di dugal caméra bi yow. wan nañu ginnaaw. dina fay kay ah, dina fay kay <laughs> <laughs> merci euh, DJ Bouba donc tey souvenir la woon n'hésitez pas dem leen sur YouTube comme on dit tout est sur internet ah maintenant. Euh, sur YouTube regardez euh, woy yi nga xamante ni moom lañ daan def à l'époque parce que boo ci déglu rek da ngay nostalgique à un point boo xamante ni euh, yenn saa yi sa yaram dafay daw et je sais pas comme moi man en tout cas damay fàttaliku ba fàttaliku même odeur bi ma doon xeeñ à l'époque. <laughs> man xet bi dafay ñëwaat sama sama bakkan. c'est vrai te de parce ci nekk am na am na woy bu

Enfin, moi j'aime bien écouter ça ba léegi nii dama koy déglu. dama koy déglu. daf ma yóbbu sori. Hmm, kii ah euh, euh, Fama. Fama Seck. Youssou Ndour ak kii nu mu bi. di la xaar xaar ma sama xel loolu passé loolu passé récent la bokk la ah, passé composé passé composé la ay génne ma dëkk bi gal ay passé récent boobu laay fàttali ko may nekk xale mu neexoon lool yéen ay passé récent passé récent parce que moi je me voyais déjà non les passé composé euh, <laughs> lu récent passé passé très récent la bi ki ne laam bi muy joxe message genre euh, couple bi dama la fi bàyyi dem xaw ma seeti keneen je sais pas clip la woon clip la woon buy wax début bi dibi dibi. ah Kiné Lam oui. xam naa ba. xaaji guddi xaw bi muy nekk ci wetu euh, kooku bi yi. sol ay kii parfois mu tëdd. mais moom clipam yëpp loolu la woon. Ah. tamit. de jigéen ñi lay waxal. jigéenu Sénégal bu ma neexee waaye. bu ma neexoo solo boobu la. léegi man nga koy laaj. yow mi lañ koy laaj. yow lañ koy laaj kay yow nga koy laaj ma. parce que yaa doon ki def naa mooy bi muy woy àdduna àdduna. mu ngoog ah, voilà. c'est a àdduna àdduna boobu la. message bi parce que dama doon gis chaque de belles émissions ay sélection de clip. <laughs> sélection de clip daa samedi. amoon na clip du jour chaque jour après journal da clip du jour. <laughs> sélection de clip ndeysaan di nga war pen. taa boobu def euh, backstage. clip clap la ko tuddee woon. dëgg ah, ambiance. li tax def backstage dama def clip clap non dama koy xool je l'adorais. mais sélection de clip moom dafa neexoon moom dañu doon teg ay woy yu xew yëpp et que voilà euh, y avait y avait y avait toute la famille parce que euh, on avait que benn télévision ak. Euh, ñëpp di seetaan woon noonu quoi. mais woy yëpp dafa neex ak ki sant Wade tam doon def. télé Maguette Wade Maguette Wade. Macky Wade moom moo doon def. même tey ci xanaa 2000 nga judd nag. yéen ñii ay passé récent lañu. am na yoo xam ne bokkoon na ci mais bon xam naa nañ ci ñëwaat Badou Ndiaye dugub yaa fa lëkk. dugub dugub dugub yee Badou Ndiaye aussi mais yow parole wooy boobu mos nga ko xam. rifondé sombi la càkkiri ngal la rek soow. yaa ma laal ma jooy awkati ne ko dugub. non waxul loolu. musuma xam dogub dogub dogub dogub en plus image yi nga lakk yaa ma laal ma jooy awkat si. dogub. dogub wax ko wax ko en allemand voilà clip boobu aussi ñu koy fàttali ñu ñëwoon euh, ci ginnaaw. moom mu ngi gaañuwul wala mu ngi. parce que à l'époque da doon jàngale. tu sais ce qui me plaisait dedans mooy que image dañ ko def comme dessin animé. voilà et c'était trop trop cool man j'adore regarder ça. genre incrusté oui. Il y avait aussi euh, Dialowar euh, moom je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah. Euh, moo woyoon yaay booy dama bëgg a jàngi l'école. Ah. Ah. découverte Baaba Maal la woon ci jamono découverte yaay booy dama bëgg a jàngi l'école. même aussi j'ai même vu Folaas. la télé asawaali alem euh, asawaali ak asamaan waaw Manel Diop Subaana Subaana bu yàgg ba. waaw Subaana voilà nga xam ne période boobu ñoom ñoo dem Finlande. ànd ak ànd ak groupe bi ci moom. Euh, finlandais la donc voilà koo xam ne ba léegi très souvent il vient au Sénégal. ba léegi affaire mais c'est quelqu'un koo xam ne aussi euh, vidéo yi boo seet seetaan ne Manel jamono ji nga xam da doon fecc dem ci festival yi gën a mag. jigéen ñi bàyyi leen baxal moo ko woyee. waaw moo ko woyee. oui mais après boo ko namee bu ngeen ko namee rek n'hésitez pas ngeen dem YouTube mënuñoo wax yëpp c'est sûr wooyu yàgg yi euh, bëri na ay passé composé ak passé récent y avait aussi xale bi la yow yaa may tere yaa may tere ne la wala sa gaaju astafurlah je sais pas nga fan waaw Salim ma doon yombi ay daara ji. oh là là waaye Omar le gars de Pikine là. ay Salimata ku ko wayati waaw mooy mooy la moom. yàggoon na France ah après mu ñibbisi. xoolal kii naan man naa ci rab bi. waaw Salimata yeegul oh Salimata ak voilà bokkul Salimata Youssou teg na ñoom tonton mag ñoo njëkk a woy Salimata waa Youssou non Youssou njëkk a woy non sàcc seen œuvre non non ko yóbbu droit d'auteur quand même merci Bouba voilà donc quelques quelques souvenirs ak woy yooyu noonu kan ci dugub da nga am dugub bon seetal leen ko dugub comme ça ñu tagal leen ko sa xel da cee ne. oui détail moom lu sa xel nekk il faut ñu tagal. mais ma tegal la ko waaw pinton bi yëpp lañ lay kii la mais ma jàpp pinton bi yëpp. mu ngoog merci DJ Bouba 9h34.